asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi dafa am benn light motif boo xam ne dañ koy faral di dégg lu bëree bëri ci yenn euh, journalistes yi ak yenn analyse politique yi muy euh, Touba ban problème la am ak Macky Sall Touba n'a jamais eu de problème avec Macky Sall Touba n'a jamais eu de problème avec benn président de la République président de la République bu ñëw Sénégal ku mu mënti doon il est élu par les Sénégalais il est le président de tous les Sénégalais mu neex la mu naqari la il va dérouler son mandat sa lool sax la ñuy ñaan yàlla président bu fi ñëw nga dérouler sa mandat si jàmm ba jeexal si jàmm keneen jël si jàmm donc nous on n'a pas de problème avec le président Macky Sall malheureusement il ne l'a pas compris ñun ñi nga xamante ni ñoom la ñuy régler suñuy compte moo di ñi nga xamante ni dañoo jàppee bétail fàtte ni ñun suñu maam dafa amoon teraanga am tur am diine am àdduna bàyyi ko fa ñëw topp Serigne Touba topp Serigne Touba ngir yàlla topp Serigne tubaa ngir mucc ëllëg topp Serigne Touba ngir diine waaye duñu jaamu kenn ñun duñu surga kenn ñun duñu dunguru kenn ay nit ñu conscient lañ ay nit ñu diiñ lañ ay nit ñu jàng àdduna ba mokkal ko ay nit ñu jàng seeni diine ba xam ko waaye nag dafa am ci certaines classes religieuses ñoo xam dañoo fàtte loolu jàppee ñu ak jur di ñu marchandé jàpp ne bu ñu demee palais man mën nañoo marchander wax ak njiitu réew mi ne ko bu ma demee dinaa fexe ba peuple bi woote dinaa fexe ba waa Touba woote leen waa ñoom dañ leen a jàppee ay jur wala ay analphabète wala dañ leen a jàppee n'importe quoi man je ne par à chaque fois dans la presse à chaque fois dans les analyses yi nga xamante ni yenn politiciens dañ koy def ñu bëgg a jàppee waa ay nit ñoo xamante ni ils sont inconscients de leur acte ba léegi nii mënuñoo analyser xam ni. Touba, ils ont été les premiers à poser les jalons de la révolution. À chaque fois, ils ont été les premiers. Lors de la révolution de 2000, ils ont été les premiers à faire croire aux populations qu'on peut changer. C'est won nañ ko Macky Sall ku fi jaar rek won nañ la ni ñun on est conscient de nos actes suñu tekk gi suñu noppi gi nga xamante ni moom lañ nekkee ndax ak taalibi rek waral ko nekkul ne dañoo xamul nekkul ne dañoo doon ay dof ñu jàng ba ne ñu wër àdduna bi ba ñëw toog ñoo fi nekk yor seenu taalibe képp ku yaakaar nag saw sant wala nga yaakaar ne saw askan tax na nga jàpp ne war nga nu mënoo saax-saaxe war nga ñu mën a def comme du bétail defal lu su lan neex da ngay nax sa bopp ñun kenn moomuñu ay gor lañ ñun kenn moomuñu ay citoyen lañ ñun kenn moomuñu ay jullit lañ jaamu moom kenn dong lañ koy def muy suñu borom kese moom la ñuy jaamu jaamuwuñu keneen képp ku yaakaar ni nag mën ngaa continuer noonu tu four fourres le doigt dans l'œil jot na nguur gi ak institution yi ñëpp xit bi xam ni fii ay nit ñi fi nekk ay nit ñu conscient lañ ñu xam li ñu bëgg ñu war a nag jàppe leen ay interlocuteur war a bañ a ut nag ay nit yoo xam ne dañ koy interposé si diggante bi fii ak ngi koy def dinañ yàgg am mbetteel